بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربي اسر لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني فوق قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد mbokki ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen nuyu nuyu bu gën a tedd nuyu bu gën a sell di nuyoo lislaam di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel ci ajjuma ji di ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla na yàlla nangul ñu ko ñu ñëwaat tey ci seen émission bu mag bii di xam sa diine ci seen chaîne bi di TMP Events TV gannaaw ba nga xamé né amna luñ fi jallalé won ci émission bi nga xamné mo passé lepp nak luy défar rek lañ ci jublu ndax jamono tollu na fo xamanténi ni kenn ku nekk ci ñun devoir la ci yow lila yalla may nga mëna participer ci réew mi ci lu koy baxal nga lu ci sa kemtalaayal katan ndax yonenti bi mo wax ne man raa minkum munkaran fal yuxayiruhu bi yeddihi fa in lam yantatiq fa bi lisaanihi fa in lam yantatiq fa bi qalbihi wa dalika adum fil iman bépp jamono bu ngeen xamee ne gis ngeen loo xamante ne nii yéen ñi yàlla may kàttan muy seeni loxo ngeen mën koo dindeeg li ngeen gis muy munkar na ngeen ko dindi su fekkee ne amu leen kàttan boobu na ngeen ko dindi ak ci seen làmmiñ su ngeen amul kàttan boobu na leen metti ci seen xol loolu moo gën tuuti ci ngëm yàlla ñu tollu won nak fo xamne dañ doon wax rek di la ante bir la ante bir bi nak dañ ko jëmele ci ñi nga xam ne la yàlla dénk rew mi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne silfani min ummatihi idha sallu salu adnas kullu wa idha fasadat fasadat nas kullu ñu ne ko ñooñu ñan la mu al umara wal fuqaa neena amna ñaar ci xeet wi ño xamne buñu baxé ñu xeet wi yeb da fay bax waye buñu yàqoo nak xeet bi yëpp dafay yàqu ñu ne ko ñooñu mooy ñan mu ne ñi nga xamante ne ni ñoom la yàlla jël doole réew teg ko ci seen loxo ngir ñu jiite nit ñi gouverner leen ngir fexe seen dund baax ngir fexe seenu njàng baax ngir fexe ba kenn ku ci nekk boo nekkee ci sa biir kër sa ak sa biir njaboot sa lépp yéwén moo xam ci wàllu faju la moo xam ci wàllu éducation la moo xam ci wàllu sécurité la ci domaine yëpp loolu nag ñi ko dénk mooy sunuy état ñoom lañ ko dénk ñi ci des mu ne bu fekkee ne ci wàllu diine ji tamit ñi yàlla teg diine ci seen loxo muy aw yi ñooñu bés bu ñu jengee bés bu ñu demee ba li leen yàlla dénk ñu fawee ko rek mu ne bu boobaa tamit adduna dafay yàqu ndax ñi ñu dénk diine ji ñoom ñoo war a gindi nit ñi di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim di leen wax li yàlla wax ci alquran ak sunna ndax ñoom la yàlla dénk xam-xam boobu waxtu wu ñu demee ba waxatuñ nit ñi diine waxatuñ leen alquran waxatuñ leen sunna lu dul di leen wax seen yëfi bopp dinañ sànq nit ñi te bu ëllëgee yàlla dina am affaire ak ñoom te bu boobaa askan woowu dafay yàqu kon ñaar ñooñu ñoo yore àdduna ñu yëg ne nag ñun ndaw ñi dañu bëgg ay repère bëgg ay royukaay waaye li ñu gis ci sunuy njiit ñi nga xamante ñoom la yàlla dénk réew mi ñooñu wanuñu ñu royukaay bu rafet ndax bu ñu demee ba lu toll ne assemblée nationale nga xam ne foo xam ne tey dañu wax ne mboolem réew mi seeni kàddu ñëpp boole nañ ko jox leen ko ngir ñu waxal leen ñu war a dem taxaw xam ne Sénégal dafa nekk ci crise bu métti ndax ñëpp gis nañ li fi xew du ci jaaraat li xew ci ndaw ñi waaye li xew ci secteur yëpp ni mu méttee nga xam ne benn bu ci nekk laaj na càmbar waaye lan lañ gis ay njiit yoo xam ne bu ñu nekkee Assemblée national xeex xuloo saagante wax ju ñaaw ñoo xamante ne ni wax dëgg yàlla ñu leen ci loolu ndax ñun ndaw ñi dañu bëgg ay royukaay yu yu baax dañu bëgg ay royukaay yu am xam-xam dañu bëgg royukaay yu am jikko parce que nag àdduna ñaar moo ko yor jikko ju rafet ak xam-xam bu koy doxal ndax boo amee xam-xam tamit te amuloo jikko tamit bu rafet sa xam-xam boobu dafay mujj sànq nit ñi moo tax xam-xam li koy defar mooy jikko bu rafet mbokk yi suñuy njiit mën nañ am xam-xam mais seen jikko nag rafetul seen jikko rafetul luñ la wax ñu ci ëpp luñ la wax du dëgg dañuy taxaw ci télé bi jàkkaarloog yow wax la wax joo xamante ne nii wallahi al azim ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko bu subaa ñu def leneen lu uuteeg li ñu waxoon xanaa war nañu nag rus askan bi ci jamono yi nga xëy gis sunu yaay yi ñu gàddu seeni paan gàddu seeni i ngir njaboot ñoom ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom sa lépp baax na te nguur boo ko yoree da nga war a maandu Seydina Omar de jàngal nañu nu ñu yoree nguur ndax am na benn buur bu ko mës a jox ay yére mu koy séddale Seydina Omar jël di séddale di séddale ba mu des juróomi mètre Seydina Omar jël ko doomam gis ne juróomi mètre yi tuuti na ci moom muy Abdullah ibnu Omar mu yëkkatiwaat yeneen juróomi mètre jox muy fukki mètre mu na ko bii maa la ko may pàppal ndax xam naa ne juróom yi doyu la Seydina Omar boole ñaari juróom yi muy fukk mu taxaw ci kaw mimbar bi sol yére bi di xutba benn waay ne bërët jóg na ko Omar maanduwoo te loolu boo ko defoon tey ñu indil la ay problème te kenn ci jullit ñi moo jóg ne ko Omar maanduwoo ndax li nga sol nii di ñu wax fan nga ko jële ndax dañ la jox pour nga séddale ngir askan wi kenn ku ci nekk nga jox ko cër bi mu moom yow nag dañ ñu won nañu yow bi ngay séddale danga ngaa sédd sa bopp lu ëpp ndax mbub mii ëpp na juróomi mètre Seydina Omar mu ne Abdoulaye Ibn Omar mu ngi ci mbooloo mi mu a ma a ko jógal nga tontu ko doomam jóg ne ah sama papa de yére bii mu sol man maa yëkkati sama sama wàll jox ko ko waaye du loo xam ne daf ko jëlee ci askan bi wala loo xam ne daf ko waroon delloo askan bi daf ko ci boppam ñii ñoo maandu te am nguur maandu moo ko yor waaye bu fekkee ne kenn ku ci nekk li la yitteel mooy sa bopp wala say militant wala ñi nga àndal ñi nga xamante ne jàpp nga ne ñoom ñoo lay dimbale ëllëg pour nga jot pouvoir ñooñu rek ngay sédd te bi nga ñëwee di laaj wax nga lu ne digge nga lu ne ba ñu am yaakaar ci yow nga lawaay ñu moytu li ñuy def di tas yaakaaru ndaw ji di tas yaakaaru sunu yaay yi te foofu lañ toll ci Sénégal nguur boo ko da nga war a xel ne li la nga war a njëkk ci yow mooy ragal yàlla taqwa allah ndax boo ragalee yàlla dootoo dootoo jéem mukk di jël alal askan bi di ko dugal fudul ci askan bi te li ñu gis dalul sunu xel ñun ñëpp gis nañ ko nañ waxante dëgg dalul suñu xel ndax islam tamit bu fekkee ne da nga ni jullit nga sa jikkoo li ci war a njëkk mooy maandu ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xeetam dafa leen wax ne leen bu ngeen maandoo rek xeet wi dox surtout yéen ñiy jiite kon na ngeen boole maandu ak ragal yàlla dañu xam ne adduna dafay jeex te li leen koy woon mooy xoolal Pape Bouba Diop yal na yàlla yërëm ko suba ñu ngi ñëw war a indi kooram waaye amoon na fi ajjuma boo xam ne ñëpp a doon mboolem Sénégal ba mu daj ñëpp a doon yuuxu turam di ko bàkk di ko kañ mu bëgg lool kontaan lool ànd ak askan wi waaye mu tey 18 ans après tey mu ngi nii keesam lañ ñuy indil te kenn ku nekk ci yéen nguur yi ne wala yéen njiit yi yenn waa ensemble national yéen ñu yor pouvoir bi yéen ñi nga xam yéen a yor parti politique yi bés boobu du ngeen ko du ngeen ci mucc mukk kon fa zawit fa zawit mi na فإنك innaka raaxilun ut leen yóbbal yóbbal bi غور ngeen góorgóorlu ci seen askan ba bu ëllëgee kenn du leen غور ngeen góorgóorlu ci seen askan ba mel ne ku mel ne غور Khadim ngeen góorgóorlu ci seen askan ba mel ne ku mel ne Seydil Hadji Malick réewum Cheikh Ahmad Bamba réewum Seydil Hadji Malick réew mi nga xamante ne ni maam limaamu fi la tëdd réew mi nga xam buukunda fi la tëdd borom nga xamne ne nañ liggéey bu rafet bu sell ngal la buñ ko yàq ngal la buñ ko yàq nañu góor góorgóorlu defaraat réew mi ci ay jikko parce que jikko moo yor moo yor adduna gis nga chinois yi bi seen réew yàqoo ci ñaar lañ ko defaree ci xam-xam ak jikko fexe nañ ba yor seen askan ci seen culture culture boobu mooy lan mooy yar seen jikko jikko ju sell fexe nañ ba redressé waat ba dem bokk ci puissance yi gëna mag te ci yar rek lañ ko defee kon nag ñun sunu sunuy njiit bu ñu bëggee réew mi jag nañu defaraat seen i jikko nañu góor góorgóorlu ci bàyyi di ñu wax lu dul dëgg wallaay askan bi yeewu nañ bu leen foog ne mën ngeen ñu ndax de dañuy xaar rek ndax réew mi duñ ko yàq duñu taal réew mi dañ leen di xaar parce que kenn ku ci nekk xam nañ fañ lay xaar ndax ñi fi jaar jaaraat na fi jaaraat te xam nañu yoon wi waaye def leen lu leen neex wax leen lu leen neex bu ngeen xaarul yàlla ngeen xaar askan wi xam ne di ngeen dajeeg ñoom bés kon delloo si leen seen i sago te xam ne adduna yàggul أدنى يقول بكى كل باكين من زرور زمان الله ما يبكي على ظلمات القبر كوغيس لمو يتيو موي نوي فيصل اي بوسام كوغيس لمو يتيو موي اوتو يي رافيت كوغيس لمو يتيو موي نوماي امي علال وايي لولو لوم بري بري نيونا ما كو خامن يبكي دا نتو خالات ني بن بس دا نيو لي دال با بوغا جوب دا نكو كو امون تور ما ngi len di wax yeen kii ñuy rob suba ku amoon tur la yéen ñii lu ngeen am tur tur lu ngeen am alal am alal noonu ñu ko def dinañ leen ko def ku dee jeex na de te laa yaati ba baatatan du ñëw lu dul ci mbetteel kon waajal leen ko ndax ku waajul bu bu la bettee daa rëccu daa rëccu ana lan la yàlla desal desaluñ dara lépp ci ñun la te nag xam-xam moo yor réew yar moo yor réew al ilmu yar fa u baytan لا عماد له والجهل يأدم بيت الإش وشرف من خم خم ما يفك أسكن بطرخ خم خم أغير ما يفك أسكن بوقا من تكيو ندارا خم خم أغير دلن جبنتي دلن ديمبلي بنيو منا بوكو تي فيسانس يغرري بنيو منا ديمبلي سين أسكن تي تشونو بني دوندو كون داوني لن لا لن دي دينك لفي نيك جيلوكو في يومبل دي واي نون نين بريباري وفيك 20 ans ci كرام ba nga xam ne dinañ yaraat suñu bopp ñun ndaw ñi ba bu ëllëgee buñ ñu dénkee réew mi lii fi am ñun duñu def comme ñi ñi ñi ñi di def loolu nag li ko mën a indi mooy préparer suñu bopp ndaw lu ne yaraat boppam ndaw lu ne xoolaat bakkanam li ko ci sonal ba mënut a jariñ réewam mu xeex ak moom ba dindi loolu ba bu ëllëgee mu taxawu réewam fii ak 20 ans ñu fexe ba lii fi am dootu fi am ñu jox la kees nga lekk ñu jiital la ngay saaga ñu teg la ci bopp réew mi yaakaar la yow talatoo sax nit ñi yëgatoo kenn sa bopp rek la ñor ak sa njaboot nga waay ndaw ñi préparé wu leen te préparation bi ci ñaar rek la mën a nekk ci xam-xam ak yar wax naa leen ko sànq euh, laysa al yatima alladi qad maata waliduhu inna al yatima yatima al mu wal adab mag ñi dañu wax ne bu ngeen di yërëm bu leen yërëm ci bàyyam dee tuddee ko njirim ñu ne kan moo jar yërëm mu ne ki nga xam ne yarul boppam amul xam-xam ndax réew ñaara ko yor waaye ak yar te yar mooy jikko ju rafet te yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko wàcce pour mu defar jikko yi innama bu'istu li u mu makaarimul axlaaq bu sa jikko rafetee nga am taqwallah muy ragal yàlla wallahi al azim loo jiite day jub parce que loo bëgg a def di nga xalaat ne bés dana ñëw di nga dajeek sa borom nga mbokk yi nga la yéen ñii samay mbokki sénégalais ñu bokk réew mi moo xam njiit ngeen moo xam ay militant ngeen moo xam taalibe ngeen moo xam sëriñ ngeen ku mu ci mën a doon nañu delloo si sago yi xam ne